بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñangini bokk julit yépp di fas yéene commencé téere imam malik muy al muwatta di ñaan suñu borom yàlla mu jàppale ñu ñu commencé ci bismillahi arrahmani arrahim eggale ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan suñu borom yàlla tamit mu yombalal ñu ba ñu yegg ci charaatéere boobu ba mu jeex tàkk ndax kat lii ñuy commencé tey du chara boo xam ne day matale téere bi waaye ay bunt la ca bunt yi mujjee xam naa nag la tax ñu tànn foofa dana ñëw ci waxtaan wi incha allah kon fi ñuy commencé moo di ah xam le ni daañu jéem a jàng jaar-jaaru kii di imam malik rahmatullahi alay tudd ci jaar-jaaram loo xam ni duñu ni moom dana ca kontaan waaye daañu wax ni xam-xam dana ca kontaan moom génn na àdduna ba pare waaye nag xam-xam moom dana ca kontaan moom ndax ay nett la yoo xam ne képp ku ko dégg te xam-xam ñor la sa xol dana ca sedd guy yi da nga ca bëgg imam malik mooy ki nga xamante ni bii dañuy wax ni faqih la maanaam ku dégg diine la waaye muhaddis la mooy koo xam ni day wax ni yonent bi soo sallam wax na nangam te kenn du ko mën a tebbi imam malik mooy ki nga xam ne mooy ñaareel bi ci ci al immatul arbaa maanaam ngir yi ñeenti imam lañu am mooy li gën a siiw al imam abu xanifa moo ca mag ka ca topp moo di al imam malik kon moo leen ñaareel al immatul arbaa daal soo bëggee xam ka leen ñaareel moo di imam malik imam malik moomu nag yàlla dogal na al mi ay millions yi millions yi millions ñoo ngi jaamu yàlla ah teg ko ci ngéeram moomu teg ko ci ngéeram moomu mu siiw lool ñu bari xam ko lu tax ñu xam ko mooy xam-xam bu sell ba ak mokkal gu rafet ga jëm ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ibni shihab az-zuhri nekk sëriñ ci moom dana ñëw xam naa ci jotaay yi di ñëw mas naa ñëw midin dal di ñëw toog ca xam-xam bu bari bu sell ba jàngal leen dara ci ay hadis bàyyi leen ba ca suba sa mu ñëwaat toogaat fa mu toogoon démb ni waaw te ngeen di andi ay téere boog di bind li may wax li ma leen net li woon démb ci xam-xam anamu rabia nga xamante ni bii sëriñ la ci imam malik dana ñëw moom ndeysaan ni ko ñun day am nañ fii koo xam ne la nga waxoon démb ca jotaay ba lépp mën na la koo net li waat mu ni kooku mooy kan ñun ko mooy ibnu abi amir mu ni ko waxal ma dégg imam malik mooy net li de nee na ma taril ko ca ñeen fukki addis ñeen fukki addis nee na ma tari ko te jataay booba moo tax jataay booba kenn waxul ni malik taril ndax booba kenn xamagul malik lu ñu xam ibni abi amir kon ñun ñii dégg malik léegi la malik xew waaye ba muy door ca jàng wa lu bari muuroon na ko ba kenn doon wax kenn doon war wax malik su dul pastif ga ak jom jom wane ca sàkku xam-xam kon tey jii kenn du dégg turu Malik looy dégg ibni abi amir wala axu nadar yooyu yëpp suuloon nañ turwa waaye turwa te ni dana génn rek ndax xam-xam bu sell ba ta bari daañu waxtaani dara ci li nga xamante ni bii Malik daf daf koo jagoo ndax lim bokk ak borom xam-xam yi loolu moom mu ngi ci téere yëpp ñëpp mën koo gis te boo tey wax sax daanaka da ngay net lim ñëpp rek waaye ñun nañ seet la nga xamante ni bii moom la jagoo moom te jotaay yi gàtt na gàtt goo xam ni sepp ca yooyu muy ëpp njariñ imam malik mi jëm jegoo bari na buñ demee ci xam-xamu al jarh wa ta'dil ubbi na fa xàll woo xam ni kenn du ko ca fekkati wala bokk néew na nga dem ci téere dégg ñu wax wax ju mel ni njaca imam malik wax ndax xam-xam boobu lam baaxoo mooy ñu ni diw ku maandu la diw ku maanduwut la imam malik deful lool de moom da koo jëfe moom xam-xam la ca gën moo di jëfe imam malik jàngale foofu jàngale mu sew ndax moom nee na koo leen fekk ci sama téere yi rek xam leen ni ku maandu la moo tax laajkat yi dañ daan ñëw di ko laaj naa ko diw loo xam ci moom ndax loolu moo xewoon seen jamono ba ci jamono imam ahmad ak ñi ñëw ci ginnaaw yépp dañuy ñëw ni diw loo xam ci moom imam malik moom bëggul woon dégg kàddu googu soo ko waxee lu mu lay tontu ndax gis nga ko ci sama téere yi soo ko nee déedéet mu ne law kaana fiqatan la raaytahu fi kutubi su nekkoon ku wóor ku maandu kun war a jël ci moom xam-xam nga fekk ma tudd ko ci sama téere yi tey loolu da lu bees tàq la bind bu bees bind bu bees boo xam ni ah du ma ni keneen waxu ko de waaye sooy lim doo mën a baril de doo dem ci ay baaraam sax kay nag ndax loolu wàccuwaay gu rëy la boo xam ni suñ borom yàlla teg leen na ko imaam Malik moo tax daana wax ni loolu mu am sax di wane ni moom ci ak gëstoom la ko amee de tëddul nelaw am ko nee na ci midin gii dund naa fee juróom-ñaar fukki nit yoo xam ni koo ci dem jege ko rek mu ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nangam nee na ñooñu ñëpp juróom-ñaar fukki yooyu ma dund ak ñoom ñuy jàngale ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk bu sell bi nga xamante ni bii lu fu waay wax rek ñu jàpp ni nit ku maan nga ku ku wér nee na taxul ma jël ci ñoom xam-xam de taxul ma jël ci ñoom qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ndax lan nee na ñoom loolu du seen mbir du seen mbir moo tax ma bàyyi leen fa dem jëli ci ñeneen kon imam malik daf doon tànn ci ñi muy jële moo tax ibnu mayin rahimahullahu taala daf daa wax naan képp koo xam ne imam malik soloo na jële ci moom day nee na ku maandu la ibnu mayin nga xamante ni bii mooy imaamul jarx wa taadil koo xam ni saa yoo tuddee rijaal yi góor ña ak ña cay wax ni diw day ku maandu la wala ku maanduwul la noo def tudd ko ibnu mahin moomu waxoon na ni imam imam malik képp koo xam ni riwaaye na jële ci yow ku maandu nga ba mu des abdul karim abu umayya mu ne kooku day moom nekkul fiqa kon gis nga te imam malik téeréem bii di Muwatta daanaka lu mos junne adiisang fa ay sëriñam romb nañu junni ñoo xam ni day riwaaye ci ñoom ñooñu ñëpp ibnu mahin nee na ñu maandu lañ ba mu des kenn kooku kooku la ko sympathie kon nga xam ni kooku wàcc waayam rëy na te incha allah buñ duggee ci addis yooyu ñuy jàng loolu dana ci gën a leer bu baax a baax a baax xam-xam nag ci yemoon a jooju moo nekkoon li nga xamante ni bii ku ko am am nga la gën a baax bu doon suñ jamono am ngay milliard toog ak moom waaw waaw aka amul solo jamono jooju moom xam-xam fu mu toll sax di am solo kay waaye jamono jooju la rawoon lu taxoon loola mooy salaahu salaam day door a génn àdduna daanaka lii di ndonoom nit ñi di ko saax saaxee Seydina Abu Hurayra moo ko tuddee noonu mas naa dem ba ca marché ba mu yuuxu wax ni nit ñi waaw yéen da ngeen di ne fii jaay ak jënd te salaahu salaam ñu koy miiraas ca jàkka ja ñu ni ko nga ni nit ña daw dem jàkka ja mu toog di leen xaar bañ ñëwaat ca marché ba. mu ñu loo leen gis ñun ko gis ñu fa dara de foofu kay mbirum doon amu fa mu ni aha kay xanaa dugg leen ca jàkka ñu ko dugg nañ war nañ foofu yëpp mu ne gis leen ñuy julli ñu ne aha kay mu ne gis leen ñuy jàng alquran ñu ne aha kay mu ne gis leen ñoo xam ne ña ngay xam lu seen diine la ca araam ak la ca dagan ñu ne aha kay mu ne loolu mooy ndoonay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu lu am solo la loola nag la imam malik jël te jël te jël ba macha allah lam te jël nekk lu am solo ñëpp ñeewe ko waaye waaye suñu borom yàlla barkeelal ko ca loola barke bu yéeme moo tax abu jaafar al mansuur nekkoon buur boo xam ni nguuram jékki woon na dayo man nga ni dem na penku ak sawu lépp lu mu soxla am ko am na benn jour ñu ko waaw yow ndax des na dara ci àdduna ci baat neex àdduna loo xam ni man ngaa wax ni yootu nga ko jotoo ko mu dal di jaaxaan ca pinyaan ba ni waaw waaw am na fi ñu ne ko waaw baaxe ñu ko loolu moo di lan mu ni des na benn mbir boo xam ni maa ngi koy sàkku ba tey jii mënuma koo am mooy ma toog ci pilyaan di jàngale di wax xaddasanaa fulaan xaddasanaa fulaan diw nett leen ñoon diw nett li nañu di sarbay ahadis mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni loolu day baat neex la boo xam ne bëgg naa ko di ko sàkku waaye amaguma ko imaam Malik nag moom boobu ci lay dund ba nim demoo xabru yàlla ko suñu borom yàlla dolli ay yërmande moo tax ku rëyoon place la ci lislaam ku rëyoon wàccuwaay la moom imaam Malik bu ñëwee nag ci téere bi xam naa comme que daañu ko jàng insha allahu daañ ci joxe ay exemplaire yoo xam ni dana tax nit ki xam ni téere bii téere bu jar a jàng la nag wax dëgg yàlla ndax mooy téere boo xam ni nit ñi yàgg na yàgg nañoo bàyyi seen réew takk seen ay bagage di tukki foo jëm dem ci Malick dégg téere ba loolu lu ëpp junni nit def nañ ko jóge seen dëkk réew ak réew Afrique desul gannaaw bu doon suñ jamono ji ma nga ni continent yëpp fu nekk rek nit jóge na fa ñëw Médine loola tax a jóg ñëw jàng téere bii di almoppa jële ko ci imam Malick rahmatullahi alayhi moo tax imam Shafi yi doon na wax ni téere yi day amul benn téere bu ci gën a jariñ jaam ñi ginnaaw alquranul karim bu mel ni téere Malik mu ni téere Malik daal bu alquran passé mooy téere bi gën a am jariñ ci àdduna loolu nag am nañu wax ne boobu bindagul Buxaari ibnu arabi ni aha kay loolu mënees na koo dëppale ba tey nuñ koy dëppalee mu ni dañuy wax ne al imam ibnu al arabi mu ni nuñ koy dëppalee dañuy wax ni téere Malik moo cosaan bi njëkk téere imaamul Buxaari mooy ñaareelu cosaan ba nee na nag ñi ñëw ginnaaw bi ñëpp nag ah ca foofa la ñuy tàngee ñoom imaam muslim ak tirmidi ak ñooñu kon loolu mu nekk wax ju rafet bu ñëwee ci téere imaam Malik fa la ñuy fekk càllale gi gën a wér loolu imaamul Buxaari moo ko waxal boppam moom moom mu nga xamante ni bii moom la ñuy wax ni téere moo gën a wér ci àdduna ginnaaw alquranul karim nee na càllale gi gën a wér mooy Malik mu jële ci Naafi jële ci Ibnu Omar te loolu nag daanaka mooy Muwatta Muwatta loolu nga fekk mu bëri fa lool bu ñëwee nag ci waxtaan ci buntu yi nga xamante ne bii bëgg nañ koo jàng daañu xam ni buntu yi am solo la ndax la ca jëkk moo di kitaabul kalaam buntu téere bi nga xamante ni bii lañ fay jàngale mooy musiba yi nga xamante ni bii moo ne ci làmmañ làmmañ ak a bëri musiba ak a bëri ay zellaat ay daanu moo tax am na téere yuñ bind sax ci buntu boobu imam Malik nag moom da caa coppati comme ni nga xamante ni bii ña doon bind bu njëkk maanaam foo yi bëriwul woon bari gu toll ni ñuy bind ay téere yu yaatu waaye dañuy ubbi fenêtre yi rek fenêtre ak nii loo ci bëgg a jàngale lu jëm ci làmmañ ak nañ ko war a garbee mu ubbi ca bunt boo xam ni lam ko jagleel moo di alxiiba lii di jëw bunt boo xam ni dëggu bunt boo xam ni ragal yàlla yooyu yaakaar naa ku ko dégg xam ni mbir mu màgg la ci bindu jullit bi ndax loolu ngay jaamoo yàlla mu jàngal la ko ca laab jàkk julli gàkk yépp soo ko garde wut bàyyi salaam mañ loola neex wax ah li ngay jëf lépp yu baax la de dañ koy noté waaye bu yomal xiyaamee nga fay ko ñooñ ko doon tooñ ci salaam mañ waaye tamit am na bunt boo xam nee na sifatu jahannam li mu fay jàngale moo di jahannam ak a jara jàng te jullit bi saa yu xëyee julli juróomu yoon lu mu nee néew julli gu nekk salaa salaam nee na ko ca muslu ci jahannama moo tax ak a jara jàng kon waaye tam am na bunt boo xam ne buntu xam-xam la ak bunt boo xam ne daawatul mazlum ñaanu kuñtoon am bunt ba muy tëjee nag moom imam malik mooy asmaau nabii sallallahu alayhi wa sallam turu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo tëj téereb imam malik rahmatullahi alayhi kon incha allahu jotaay yi di ñëw daañu commencé ci tarjama imam malik biographie am jàngale ko suñ paree dugg ci ahadith yooyu nga xamante ni bii incha allahu daañu dugg ci sharaa ko ànd ak yéen ci jotaay yooyu di ñaan suñu borom yàlla mu defal ñu dégg ak topp def jotaay yooyu mu nekk jotaay yu am njëriñ wasalaamaaleykum